premier ministre Ousmane Sonko nee na du def déclaration de politique générale feek assemblée nationale bi jooyantiwul réglement intérieur bi nga xamante ni amul benn disposition buy wax ci lu jëm ci premier ministre bi mu doon lii nag moo ngi ko xamle ci publication bu mu def ci page Facebook am di tontu député bi di Guy Marius Sagna ci lettre bu mu ko bind di sàkk ci moom ngir mu bañ a dem ci assemblée nationale di def déclaration de politique générale te soppar ñëwuñu réglement intérieur bi nga xamante ni moo fa nekk Ousmane Sonko doore ni Guy Marius Sagna jot naa bataaxal bi nga xamante ni yónnee nga ma ko li ma ciy tontu nag mooy bu njëkk mu ni déclaration de politique générale bi mu war a def pare na te mi ngi wax ni yàqamti na loolu ngi daal di amal lu ni mel ba xamal askanu Sénégal yéene ak politique bi nga xamante ni moom la nal moom ak gouvernement am te lépp nag di ay orientation yu jógee ci président de la République Bassirou Diomaye Faye mu teg ci ni article 55 bu constitution bi nga xamante ni moom moo obligé premier ministre bi ngir mu daal di def déclaration de politique générale ca kanamu assemblée nationale bi nee na précisé wul délai yi waaye itam bu dee procédure bi Ousmane Sonko ni règlement intérieur ba assemblée nationale bi moom moo ko yore di loi organique numéro 2002 20 du 15 mai 2002 modifié rax ci dolli mu ni disposition règlement intérieur bu assemblée nationale boobu nga xam ni moo tëraloon procédure maanaam ban anam la ñuy jaar nga daal di amal li nga xamante ni moo di déclaration de politique général bi ak mboolem poñ yi nga xamante ni li ko taxoon a jug mooy premier ministre bi mu doon Ousmane Sonko nee na yooyee yépp loi organique bu règlement intérieur bu assemblée nationale bi nga xamante ni moom lañu amal ci atum 2019 moo nuyu la lépp bi nga xamante ni jëlee nañ fi poste premier ministre bi ci loi organique numéro 2019 14 Ousmane Sonko teg ci di leeral ni règlement intérieur bu assemblée nationale bi nga xamante ni mooy dox ba fi mu nii amul benn yoon bu mu bàyyee xel premier ministre bi ndaxte ba tey jii kenn actualisé ko maanaam kenn sopparñiwu ko wala ñu tëggaat ko gannaaw bi nga xamante ni indiwaat nañ poste premier ministre jaarale ko ci loi numéro 2021 41 du 20 décembre 2021 bi nga xamante ni ci la réviser révisé woon constitution bi premier ministre Ousmane Sonko ne nag bu sukkandikoo ci lii lépp mu fi wax li nga xamante ni moo ci mën a topp gannaaw bi nga xamee ni bàyyi na xel bu baax a baax séparation des pouvoirs ak li ñu woowee principe de légalité mu ni du amal benn yoon fi mu toll nii ab déclaration de politique générale ca assemblée nationale fekk majorité bi ci boppam amandé wuñu maanaam ñu defaraat tëggaat règlement intérieur bi ba nga xamante ni dina bàyyi xel premier ministre bi mu doon mu jeexalee ni nag nee bu fekkee ni assemblée nationale bi deful benn jéego jëm ci loolu fii ak le 15 juillet 2024 moom Ousmane Sonko ci boppam dina amal ab déclaration de politique général waaye nag du nekk ca assemblée nationale waaye ci assemblée boo xamante ni day dajale ay sénégalais yu neutre ak ay partenaires yu mi waaye ab jury boo xamante ni dana boole ay universitaire intellectuels ak ay acteurs citoyens politique maanaam ñoo xam ni faruñu fenn ci wàll politique ngir mu daal di amal déclaration de politique générale boobee Ousmane Sonko ni jàpp na ni sax su boobaa dina nekk déclaration boo xam ni dina wuute ak yi fi doon am maanaam mu ànd ak débat bu libre ngir ku nekk mën caa wax la mu xalaat kàddu Ousmane Sonko yi nag mi ngi ñëw ci jamono boo xamante ni coowal déclaration de politique général moo ngi ni kurru ci réew mi gannaaw ay leader politique yu bëri génn dal ci kaw Ousmane Sonko ne la ko war mooy mu dem defi déclaration de politique général te bañ a làqatu ci constitution bi ngir bañ koo def am ñu bëri sax ci ñoom jàpp ni Ousmane Sonko ci boppam fi mu toll nii day daw assemblée nationale bi xam ne bu demee di yomb ci moom ni ñoo di coalition Benno Bokk Yaakaar tey jii woote nañ ab janoo ab taskatu xibaar yi ñoom itam ngir fas yéene àddu ci mbir mi nu mel des nag ñu xaar fan la wànnent di mujjee ki gëtëm